بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يوصف غيره بالكمال ولا بالجلال والجمال والصلاة والسلام على من أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله تشريفا وتكريما وتعظيما له ورضي الله رضا لا سخط بعده عن قطب الوجود ونعمة الأكوان سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد التيجاني وعن سائر خلفائه ونفعنا الله ببركاتهم الى يوم اللقاء بوكي طالبي فوتي واي مانا نيك غور اك جيجين ماك اك نداو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فالافراح تتزايد والقلوب تنتعش انتعاش مخلد امن لو خمني ku ci santul yàlla dootoo sant yàlla mooy ku waroon tànnal sa bopp te mën nga tànn juum te boo tànnee mbir def ca sa kàttan ba mu jeex nga yëg ni danga juum sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu kon su la yàlla tànnalee la nga xam ni tabaarakallahu mooy la gën dara du ko dab ba dara di féete di dend ak moom walla dara di ko féete kaw kon yow sa dund sant yàlla doy na la liggéey am na ñoo xam ne sant yàlla doy na leen jaamu yàlla guddeeg bëccëg suba ak ngoon وربك يخلق ما يشاء ويختار yàlla bind yàlla séddale waaye nañ ko bàyyi mu tànn bu la yàlla tànnalee rek doo dégg lu dul eskay nahnu ashaabi salaati alfatih ñun ñi nga xam ni yàlla sunu boroom ci mbaaxam بفضله ومنه وإحسانه لن يلا سنو بروم تنال طريقة ودي طريقة مولانا قطب العارفين أبو العباس أحمد التيجاني الشريف الفاطمي رضي الله عنه suñu doon tànnal sunu bopp من na am du nu xàmmee bay tànn waaye tariqa boo xam ni jàmbaar dugalu ca kenn jàmbaar dugalu ca kenn ak yaafus génnewu ca kenn boroom mooy sopp nit xëcc ko walla mu ñàkk am ci yow cofeel màndu ci yow mu melni yalla sunu borom daf ko rang ñaari melokan modi radiyallahu anhum wa radu anhu ak yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu ñaar buñu dajé ki yoré njariñu ki ci dess ki mom amul lenn luddul yaakar njariñam ci ki mu nekkal ki yaakar njariñ mo wara jëk sopp ki yaakar njariñ moo wara a gërëm moo wara a njëkk tagg waaye yàlla sunu borom moom lay soob mu sopp jaamam ku yàlla sopp rek roof ci sa xol ngëm te ku yàlla roof ci sa xol ngëm nag yàlla jox na la garantie àdduna ak àllaaxira ndax idal imaanu daa fala amaana ولا دنيا لمن لم يحيي دينا كون يالا لا صوب مو دوغال طريقه مولانا سيد الشيخ احمد التيجاني رضي الله عنه غا خامني يالا جاغلل نكو نيت شرف نيت شرف الشرف الديني والشرف العلمي والشرف الطيني والشرف الديني من حيث طريقه طريق ضمان الهاشمي المؤيد طريقام صوصوكو moom سيدنا الشيخ صوصوكو ده محمد صلى الله عليه وسلم moo yéene gannaawam mission dotul dagg ba mukk yéene itam ci biir mission mu am fi ñoo xam ay tànneef la don doon ndax bu yëpp bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bos mu jël tariqaam jël mawlaana sayid cheikh ahmadu tijani radiallahu anhu ñaan ko mu wàcc jiita tariqa bi yonent bi moo ko sàkku ci moom na cheikh xëyul xëy rek daal di sos tariqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jël garantie ak lépp ñëw ñaan ko ni ko ñëwal nga jiite ko amara nabiyu imamana bi لإفادة الأخلاق بالورد الجلي يعني أنت موكو ساكو سي موم قال طريقه لا بو كون غارانتي تي لا يم تا مودي محمد صلى الله عليه وسلم جوخ يقظه لا مناما حوى الشرف العلمي من حيث كشفه عن الغامضات الحجب في كل مقصدي xam-xam géej la géej nag lu nekk nga ca ndoxa nga ca jën nga ca wurusa nga ca lu nekk nga ca waaye ya nekk ci biir géej la muy bare bare am na ci yu ëpp valeur yoo xam ni mooy yi am valeur ba tax géeju xam-xam nag ya ca ëpp valeur nga xam ni mën a fay taxul nga jot ci mën na nuur taxul nga jot ci ndax lëgg-lëgg baa sore moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël weenam ba saxal ko sexal ko sayduna cheikh radiallahu anhu moom itam mu sexal ko ñi mu am tax kon boobu tedd nga itam mooy ñaareelu tedd nga bi tedd ngay tariqa tedd ngay xam-xam boo xam ni amul fenn moo tax cheikhul xalifa radiyallahu anhu daan wax naan inna alxawaamida malabu sibyaani xam-xamu mbóot secret yi nga xam ni nit ñi nit yàlla yi dañ ko daan denc di ko nëbb même seen doom daawuñ ci waxtaan ak ñoom dañu daan toog rek ba war a wuy ji seen borom yàlla xam na ku moom cër bi ñu jox ko ko mu waraloon mag ñi daan war gëléem dem gànnaar dugg fu ne pour gëstu ca dara tuuti lu ñu mën a xeeñtoo yàlla sëñ kër Si nee na boo ñëwee buntu kër Seydina Cheikh fekk xale yi ndaw yi di ko ràbb mbege ak di ko kàndange di ko foye loolu tabaarakallaahu mooy ñaareelu tedd nga bi ñetteel bi nag mooy xawa sharafa tayniya من حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndono ruuxam sayyidatna Fatima moo ko incarné woon mu séddale moo tax koo xam ni kii nag bu ñu la toppee sa càlla la fa ngay mujj mooy ñu fex la ñu fekk la nga sex weenu sayyidatna Fatima di namp danañu xam ni yàlla sédd na la te séddantuwu la danañ xam ni askan wi gën a tedd ci la la yàlla sunu borom tànnale waajur kon ñetti sharaf yi moom la ko yàlla sunu borom jagleen mu bokk ñun wala ñu bokk moom mbégte ci weeru safar weeru muharram bi nu génn muy xarit defe naa mooy shahrul xatmiya yàlla sunu borom jagleel ko lu ñuy wax alxatmiyatu ndax ñaari silk moo am ñaari ñaari ligne bu nubuwa ligne nubuwa dafa tàllalu ba ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la yem laa nabiya baada moo tax kon képp ku bokk ci cercle nubuwa muy ay yonent ka leen di ka leen di nampal ka leen di nampal leer ka leen di séddu cër bu jóge ci yàlla sunu boroom moo di yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo leen sexal weenam waaw du ñu mos dara lu jóge ci yàlla te jaaruñu ci yonent bi ndax yonenti beeg yàlla la ñoom ak yonenti bi lanu kooku mooy silku nubuwati ah bu dee silkul wilayati nag fa lillahi alhamdu wa shukru kenn la ko yàlla jagleel mooy xaatim ba muy mawlana sayid cheikh ahmad tijani radiallahu anhu cheikhuna tijani sharif radiallahu anhu gannaaw nubuwa li ñuy wax wilaaya muy allah di waliyu yi ya cey aqtaab ak ña cay axwaas ak ñoom ñëpp bi nubu wo yonent weye cadre wilaya ken du ci mos dara lu jóge ci yàlla ludul sayyiduna sheikh radiyallahu anhu moo lay saxal wenam ku ko xam loolu moo am ku ko xamul itam loolu mooy li am bu ñu nee xatmi ya nag firiwul ni gannaawam wali yu du ñëwati déedéet fëtëy bi gën a kawe ci ci wilaaya nga xam ni moo gën a kawe ci fëtëy yu wilaaya yi ki yépp ci suufam lañu nekk fëtëy ba moom moo ca ferenklaayu yi ci suuf ñépp ku ci ne loo war a mos moom moo la koy waddalal nga tax ñu ne bu lëg lekkee alam na ko gërëme coy kon ci cadre wilaaya moo féete ñépp kaw looloo tax mu mën a sedd ñépp kooku ay détails yu bare la danañ ci ñëw insha allahu taala ah ñu dugg weeru safar weeru day waar wa aama uhdia muxtaadan ala jalalin daahu fi safarin mawlaahu lil karami gis nga fi safarin mawlaahu lil karami ca maamam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw wa aama uhdia muxtaadan ala jalal muy lim di di di cër boole ci jalal waaw waaw màgg mët ci ci anam yëpp moom yonent bi nga xam ni alkamaal alkamaalul muqayyad mën nañu wax ni ferenk laay na ca njobboxtal la ba noppi nag di lim muy 63 ans daahu fi safarin mawlaahu lil karam waaw ci weeru safar ak yàlla sunu boroom tànn loowee ni ko nga tànn ma bàyyi la ci àddina bi ngay wéttali sa njaboot walla ma indi la fii di la wéttali man yàlla bu la ci dàqal yonent bi ni ko tànn naa ñëw nga di ma wéttali ndax àdduna ba mu jeex bëggatuma fi lenn ah yow rek yaa ma saf te it ku sa kanam ku sa eh, gannaaw rafet eh, eh, nga wóolu sa kanam tabarkalla te ñi ma fi bàyyi doy nañu ma kon lil karam yàlla daf ko woo mu dem ah ngir nag yàlla sunu boroom daleeg moom beneen xeetu teraanga bo xamni bokul ak bi mu ko daan defal ci aduna jëme ka nak ba su pench mu wara a ak mom benen xetu teranga motax wéru safar yi ci yi ci yi ci aju dafa bare ah ñu dugg ci safar tabarakallah sunul khaliqin andak ak sayidna cheikh di bege nag cër bu nuy wax al katmiyatu alkatmiyatu al katmiyatu ah moy mbir ma nag ndax dañu ko laaj moom sayidna cheikh radiallahu anhu ni ko ma maana al maktuum maanaam al maktum mooy ki nu nëbb mbiram ñu laaj ko ni ko waaw lu tax ñu ñu jox la tur wi maktum gi lu muy firi mu ni mooy ki nga xam ni cëram ak mayam fi mu dale ak fa mu yem ku dul yàlla ak yonent bi xamuñu ko xamuñu ko moom sax xamul fu cëram tàmbalee xamul fu cëram yem <laughs> xam nga sàmba foofu dafa doy waar di la may di la may ba yow xamatuloo sa may fu mu tàmbalee ak fu mu yem mu ni même moom Seydina Cheikh xamul fu cëram yem yenente bi moo ko xam ak yàlla sunu borom mi nga xam ni moo ko ko sédd moo tax nag wal xaqu annaka qad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani waaw ah, sëriñ Cheikh turandoom moo nekk fii di def reportage bi waaw ah, ni ko li li li am waaw ah, te yàllaa ko def kenn defu ko te yàlla dootu ci dellu gannaaw def na ko ba noppi maatay la cay teg te maatayu yàlla nag kenn mënu ci dara mooy an naka naka yow Cheikh sama turandoo qad mu mubashiran waaw ah. ah. waaw ki ki ki yàlla wax sax mu ñëw bégale la ko eh, dala sa xel ni la ñaari fëtëy yi muy xatmiya bi ak katmiya bi yow yaay borom bokkoo ko ak kenn mooy sa maam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa moom yonent bi sawar na ci yonent bi waaye yow itam sawar nga ci dikku yonent bi ci yow ndax yéen ñaar complice bi dox seen diggante yéen ñaar ndax umpalewu leen ni سيدنا الشيخ رضي الله عنه موتاون دونو ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم موكا تاو موي سر امانيغا كودياك سكرياك ياتي اديو ييب موم لاك ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم جوخ نيكو كون نك ينتي بي صلى الله عليه وسلم moo wax te moom laa ko anil hawa du waxant lu mu wax yàlla ko wax la waaw moo ñëw jottali la ni la daal sa boroom sedd na la ñaari fëtëy yooyu muy fëtëy bi nga xam ni xaatimul awliya moo cay toog di wëndeelu côté bu ko neexee waaw ku mu xool bëgg la nga yëkkatiku nga yëkkatiku ku mu xool bëgg la nga fees nga fees waaw kon noppé gem ci chaise katmiya nga xamul fu xamul fu mayam tambalé xamul fu mu yem waaw lu ko soob mu def ko ca wahuma al asaasu lima tara min ni'matin amat bisaat al ard bil fayadaani ñak xam li xew rek ñak xam li xew wa waye li fi nek nit ñi di ko jëkkanti mu indi ciow indi werante indi xiro indi ŋaayoo bu ko yóotu woon ba mu ñëw téye ko kenn dootul yëg dara kenn dootul mos dara waaw tabarkal la ndax cëram la bu ko defee nag muy ñaari cër yoo xam ni ku ko yàlla sunu boroom jox jox na la garanti àddina ak àllaaxira ku yàlla sunu boroom dogal ngay njaboot yàlla dugal na la ci garanti àddina ak àllaaxira yan noonu yàlla dugal ci boobu garanti àddina ak àllaaxira tabaarakallaahu ah ñu fas ko yéene nag taxaw fas ko yéene tabaarakallaahu bége dañ ko daan defe fii ci daara ji ci sunu xadara mbokk di soppe al mujahid tabarakallah al kabir Cerno Hamidou Ban fii ci Scat Urbam na mu ko daan defee at mu ne ci kàttanu yàlla talaata bii di ñëw defe naa mooy nekk le 6 ci kàttanu yàlla lu ko dalee ci tàkkusaan incha allahu taala la dajaloo fii ah ñu ni tamit euh, euh, sant yàlla sunu boroom ndax tariqa bi tariqa sant la tariqatu shukur la ndax li liñ ci yàlla sunu boroom defal mënuñu ko defal sunu bopp comme yàlla mo won ko defal nak ci mbaxam nak kon ñun sante yàlla doy nanu doy nanu doy nanu doy doy nanu mécc dajaloo jàng sunuy tabaarakallahu alquran def suñu dog salatul fatih def ko hadiye ci sunu kilifa mawlaana qutbul aarifin bokki taalibe yi xoolante xar kanam ak xar kanam bége salaatul fatih bi melxati ci xar kanamu taalibeem yi cofeel gi dundaat ñu bokkaat waxtaane luy nàmm sunu pas-pas ci moom lu nuy gën a soppaloo lu nuy gën a ŋoyloo ci tariqaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla may nu fekke ko su boobaa ñu daje fi déglu sunuy asatise tabaarakallahu ah sama ustaazu bopp alxaaji imam Moussa Gueye tabaarakallahu imam Cheybatu imaam Omar Diagne imaam tabaarakallahu Cheikh Tijani Ndaw Cheikh Tijani Ñang ñoom ñëpp tabaarakallahu ak ñeneen borom xam-xam tabaarakallah yi fi daan daje ku ci yàlla mayul ngant rek nga daje fi sunu paree nag tabaarakallahu al mujahid al kabir tabaarakallahu Cerno Hamidou Ban def synthèse bi na mu ko daan defe di mag mu yàlla baaxal mag mu yàlla yaatal dënnam di mag mu bëgg lu baax tabaarakallah te mag mu bëgg di boole ay nit la ñuy ànd te mag mu bëgg tabaarakallahu di réaliser loo xam ni lii dafay nekk ndamu lislaam ndamu tariqa bi yal ko yàlla dolle jàppale kon daal loolu avant première bi la woon rek ci wàllu katmiya bi insha allahu taala joxante rendez-vous talaata bii di ñëw muy mardi ci 17 heures insha allahu taala ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci tuuru Safina FM ak Safina TV tabarakallahu di ñaan yàlla yan na yàlla jëmale rajo beeg tele bi ca kanam seen mbokkum taalibe Alxaaji Abdoul Aziz Fall moo doon jottali kàddu yooyu sant suñu caméraman yi tabarakallah Samba si ak ñi koy jàppale ñu jox leen rendez-vous kon yan nañ fi yàlla yóbboog jàmm ak salaam ñu fekke ko tal ko te yàlla mottali sunu mébét wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.